Addis yow yow yow parti bi déggoo ci monsieur le député. waaw déggoo ci honorable conseil économique. waaw déggoo ci honorable au conseil. dégguma la DG dégguma la conseil spécial yu baax yow dégguma la ci. waaye li tax. Addis ndax yow naanite nga. mais il est dans le gouvernement parallèle. gouvernement parallèle ba. bi ne pare ci la bokk. non man li nga wax gëm naa ko parce que Addis. Euh, euh, day toog ak naajement ak Macky Sall amul benn problème bu gisante ak Macky Sall amul benn problème toog naa man ak moom mel na Amadou Ba moo ko woo aw ma ci lu ma woo mais mais mais mos nañu toog man ak addus sa téléphone sonné mu mel dama seen numéro bu baax bi mu mel dama ko seen ci sa téléphone ba pare guddi yi ñu toll na nga addus nag dañu wax dëgg nag mm-hmm. Amadou Ba presse bi kay jàppale mm-hmm. jàppale wu ñu ko ci Mali foro mm-hmm. dañu wax dëgg kon yow mii toog ñëpp xaru ñëpp xaru Macky Sall presque te te lu gën a garaaw mooy Macky Sall man dégguma Macky Sall forcé kenn ndax ci ay jamono ma xam Macky Sall kenn yebba ko nag dañu mën a dëgg mhm. li tax lii loxo te déggoo fenn benn rim rim rim am na fu ñu jaar ak yow foo dul wax parce que li Addus ni da nga <laughs> nga yor ak chauffeur Addus <laughs> tu as un nga doon yéeg damay sant suñu bopp Adustu monté sur Jakarta. kii si deux roues yëg ñaari roues. koo koo ci àdduna Anis xamante nañ man sa. waaw yàgg na ya. yu ya njëkk mu sànq ma yëg dama dama dama tiit ma ne ko Anis Anis Anis war ngaa départ taa yoo la ñëw di jooy naan affaire balaa affaire. maintenant ay sa. xool bi dama xëy suba rek. changé. adu sa chemise bii sa chemise xale sa jiin bii du jiinu xale sa daal yi du jaar daalu xale la nga gaare fii ci buntu tere bi du yëfu xale te chauffeur la adus yor hmm. yoragul gàddu ko ndax ma faalu gàddu ko mu ngi yor ay ay ay la yor adus mi ku bëgg a dee <laughs> waaw adus ku bëgg a dee ku bëgg a xarul songal adus bu dóor la bal wàccee la nga daan adus yow mu kon bu taxaw fi naan ah, amoo ci dara euh, euh, euh, Amadou sawaay bu jaarul la yow fenn Macky Sall jaar na fenn te man toog naa encore une fois sa téléphone sonné ma ni nii. xam nga yërlu ah, numéro baax bee la woo. nee naa la li ma ci am. loolu pour précision am na ñu bëri ñu bëgg ni nekk Sénégal bëgg ko ci am amuñu ko. waaw mooy am naa ci su ma waxee ñu déglu ma. waaw loolu dëgg la. Mm-hmm. moo ëpp yi milliard. Mm-hmm. am naa ci yàlla may ma may toog ak moom di def émission. moo ëpp yi milliard dox ñëw. <laughs> tey classe gi ñu ngi kaa gis